بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki jullit yi ñu ngi leen di dalal jàmm ci keppaaru Ramadan di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci tey jii nga xam ni muy fukkilu fan ak juróom ci weer wu tedd wi ñuy daje bëccëg bu nekk ci sunu place bi ñu tuddee sous l'ombre du Ramadan donte ne ni place la boo ñu yaakaar njëriñ waaye nag duñu fàttaloo mukk ni fa nga xamee ne nii moom lañ doon daje rawatine bis bu mel ni suñu bis bi di bisub aljuma moo nekkoon ca jumay borom ya ca jumay borom bi di déglu xutbab imaam ànd julleendoo saafonte loole suñu borom yàlla mi moom ay jaamam di dogal ci ñoom la ko soob ca lum dogal ab jaam war koo nangu war koo gërëm moo dogal tey indi fii ab nattoom di benn armeem bu mu wàcc ci kaw suuf moom mi nga xam ne nee na wala yaalamu junuda rabbika illa hu sa arme boroom kenn xamu ko ku dul moom arme boobu nga xam ne maîtrise ne toutes les armées du monde arme boobu nga xam ne jommal na grande puissance yi loolee mbokk ndawal yàlla la ñu xam ne nag yàlla ko yónni muy mbugal ñeel ay noonam ci àdduna muy mbugal gu jokkoo ak mbugaluk alaxira doonte ne ni démb ci suñuy waxtaan doomu aadama bi léeg-léeg da ngay am ay rëcc-rëcc moo tax ñu ni mboolem ñu cedde yal na yàlla dafa leen àjjana wàccuwaayam waaye jàpp naa kuy topp waxtaan yi it da nga xam ne suñu jubluwaay ca loolu moom muy julit ñi daganul ku dul julit ñu koy ñaanal muy dem aljanna képp ku dul jullit bu dee dañ koy bàyyeeg boroomam duñu dogu ci moom ni àjjana la jëm ak sawara la jëm am nga droit daal ne yéeféer yépp sawara lañ jëm comme ni nga amee droit ne jullit ñépp àjjana lañ jëm waaye nag doo ca tënk kenn ku dul ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tënk kon mbokk ñi ngi ñaan li yonent bi alayhi salaam wax nee na yàllaa ko def yërmande muy épidémie yi yàllaa ko def yërmande ci jullit ñi imma yàlla faat leen ca bool leen minal shuhada ñu bokk ci ñu gën a kawe daraja yowmal qiyaama wala yàlla teg leen ci ay feebar feebar yooyee ñëw far seeni bakkaar daa di yëkkati seeni daraja même bu ci ay sekel desee doonte ne ku wax feebar wax jaaxle da nga wax la nga xamee ni nii moom mooy ñàkkuk alal ca mbokk loolu lañu suñu boroom di béggale ba muy wax ni dinaa leen nattu te nattu ba lam ci jëkkateeg mooy béggalal munkat yi lam jiital mooy tiitaange la chaque ne corona tiital na ñépp moo tax man ak yéen kuy génn gàddu maskam la nga xamee ni ni mooy ab xiif yal na yàlla fegal ñu ko waaye yéen ñépp yéen a ngi dégg li nga xam ni ñii toppatoo wàllu xiif ci àdduna bi ñu ngi koy ragal rawatina ci yenn dëkk africain yi gannaaw ba wàññi ay bakkan loolu moom leer na nañ yàlla xam la cay exact waaye bés bu ne ngeen dégg ne dëkk sàngam ay junni junni dee nañ fa gannaaw ba itamit production yi suñu borom wax ko ca jamono bu njëkk ba moo nekkoon wàllu mbay meeg samaraat te it ku na xam ne ni ana ñaata milliers bal de millions yoo xam ne corona moo tax ñàkk seen liggéey waaye nga la wayu jullit bégal imma da nga cay dee bu sa pas-pas rafetee àjjana nga jëm insha allah da nga cay feebar dana far say bàkkaar yëkkati say daraja ci kanamu yàlla da nga cay ñàkk ñàkk googu muñ ko muñ gu rafet amul kenn ku muñ muñ gu rafet ba pare yàlla di ko seetaan neenal ay jëfam innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajral muhsinin loolee kon ñu bàyyi ko xel bu baax bis bu ñu waxatee it nga xam ni heure bu ñuy ñaanal ñi ngi ñaanal la nga xam ne suñuy mbokk julit ñeneen ñu dul julit moom genn ñaan lañ leen ameel mooy yal na yàlla jubal leen tabbal leen ci lislaam ba ëllëg ñu ànd ci àjjana ya loolu day moom ñu ngi leen koy ñaanal ca yéene leen ko ca mooy naka yonent yi alayhimu salaam daan defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne jamono bi ka naafiq yi di tuumaal naan ko maandu woo ba yenn sahaaba yu jóg ne nañ leen rey yonent bi alayhi salaam ne leen déedéet xanaa xamu leen ni yonent yi mu jiitu woon daanañ woote jëme ci yàlla seen xeet seen xeet jël leen dóor leeni xeer ba seen bopp yi toj ba seen deret ji rogalaat ci seen bët yi ak seen gémmiñ ya ñu naan ay yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen dañoo xamul rek yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen loolu it kon ñu ngi yéene bépp yéeféer yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ko mu tuub ba tab bi ca la nga xame ne ni mooy ngërëmam àdduna ak alaxira waaye mbokk tey ci keppaar gi démb ñu ngi doon waxee wàllu dogal jàpp naa ne képp ci ñun dana jàpp ni suñu borom yàlla moo moom lépp lu nekk ci kaw asamaan yi ak suuf yow fat caam moo la moom yow Modou Sow moo la moom moo la bind tàggawul kenn mooy dogal ci yow la ko neex moo dogaloon nga nekk góor wala jigéen moo dogal nga ñaaw wala rafet moo dogal sa dund moo dogal lépp luy nekk ci yow loolu yi ab jullit da ko war a gëm da ngay gëmit ni lu wëlbatiku ci yow ci moom la jóge amul yokkute guy am ci yow lu dul ci moom la jóge amul natt bu lay dal lu dul ci moom la jóge loolu yi jullit da ko war a gëm doonte ne ba ñuy tëj waxtaan wa it lañ leen waxoon mooy du tax mukk na nga franko lay ne rek jeex na kon mën naa mel ne rek xobu garab fu ngelaw du ñëwee yóbbu ma déedéet suñu borom yàlla dala may xel sant la tere la sa xel moomee da nga koy jëfe ci lépp loo loo xam ne dana la jëriñ di ko jëfee ci daw lépp loo xam ne dalay lor góor góor lu ci santaane yi moytu tere yi ah gannaaw ba nga defee sa waru gar nag la ca des nag moom nga wékku ci sa boroom jalla wa ala mbokk suñu war a gar yooyu ak sabab yooyu nga xam ne moo ñu war ba ca gën a am solo la ñuy waxtaane tey insha allah mooy lan mooy lu jëm ci la nga xam ne mooy ñaan mbokk ak ñaan li ngay jëkk a xam mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa bind àdduna mu ànd ak ay coono ànd ak ay tolof tolof ak ay jaaxle na nga nekk président général d'armée nekkal milliardaire artiste bi gën a siiw ci kaw suuf teewul moos mu am bis yoo xam ni jafe-jafe moom dana la am fii ci àdduna waxumaa nag jafe-jafe yay xaar ci àllaaxira sunu borom yàlla subhanahu wa taala nag ci biir loolu la jox jullit benn ngànnaay boo xam ne nii loolee taxaw ci kanamam moom lay gànnaayoo di gànnaay goo xam ne du jeex du gànnaay goo xam ne du nasax du gànnaay goo xam ne kenn mënu koo nangu ci moom mi ngi noonu su ko defee heure boo xamee ne nii jullit xam na loolu day daa di am fit lenn dootu rëy ci kanamam lu tax ndax xam ne ne am na gànnaayu ñaan bokk ñaan mooy lan mooy lii nga lott nga dimbinikoo ca kan nga cay dimbinikoo mooy sa borom bi nga xam ne innahu ala kulli shay'in qadir sa borom bi nga xam ne lépp mën na ko sa borom boobu nga xam ne innahu bi kulli shay'in alim lépp xam na ko ci lépp mën na ko loolee bu ko defee yow dara dootul nekkati di la jaaxleeti sa la nga xam ne mooy sa wàllug dund gi bu ñu delloo ci ñi nga xam ne seen pas-pas baaxul heure bu problème ni këtt na jonn la ñuy xalaat mooy seen kàttanu bopp am na ci ñoo xam ne daan jël arme jéem a xeex ngiree faj seen problème am na ñoo xam ne dañuy daal di dem naan ay drogue am na ñoo xam ne dañuy daal di dem xaru rek ñum daal di cay génn am na ñoo xam ne dañuy daw jëm ca njabarkat ya ca ña nga xam ne nii ñooy xarfa foofa ya ngiree ñoom ñu régler problème bi ñee nga daw jëm ca xamb ya am ñoo xam ne ñi ngi riir jëm ca bàmmeel ya am na ñoo xam ne ñi nga tàllal seen loxo jaami yàlla ya da doon abubakar lay doon wala omar wala jibril wala kum mën a doon ci jaamu yàlla yi waaye amma yow julit amma yow julit yow la yàlla subhanahu wa taala may la nga xam ne mooy urwatul wusqa njàpp ga nga xam ne moo gën a dëgër ci njàpp yi moom la borom bi subhanahu wa taala di wax gannaaw aaya bu màgg boobu di ayatul kursi borom bi subhanahu wa taala mu ne wa man yakfur bi taaxuut wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati lwusqa lan fisaama laha wallahu samiun alim képp koo xam ne weddi nga taaxuut ca mooy lépp lu ñuy yaakaar ca du yàlla lépp lu ñuy sukkandiku ca du yàlla da doon loolee jant la weer la malaaka la nit la jinna la xamba la lu mën a doon lépp loo xam ne dañ koy yaakaar rek su boobaa taaxut lay doon ca kookee ka yaakaar suñu borom nag nee na ku boole weddi lépp xam ne kenn amul kattan ku dul yàlla ca mooy baat bañ mujj woon ak yéen démb laa xawla wala quwata illa billah ku dem ba yëg ne amul benn ku am kattan wala mën-mën ku dul yàlla suñu borom nee na kii de jàpp na ci jàpp gu dëgër goo xam ne du feccee ku mukk ndax yàlla mooy aji dégg lépp ci ku koy ñaan aji xam lépp jalla wa ala mbokku jullit moom lii lay gëm xam ne lor kenn mënu koo teggi ci moom ku dul yàlla lii mu yaakaar kenn mënu ko ko jox ku dul yàlla lii muy tiit kenn mënu ko ko fegal ku dul yàlla li koy jëriñ àdduna ak àllaaxira kenn yoru ko ku dul yàlla ca loolee it fàttalikul waxtaanu démb ba yonent bi alayhi salaam bi muy wax ibnu abbas naan ko ay ngóor si maa ngi lay dénk ay kàddu wattul yàlla yàlla wattu la wattul ay ndigalam wattul ay tereem foo jaaxle yàlla wuyu la booy ñaan bul ñaan ku dul yàlla booy dimmini ko bul dimmini ko ku dul yàlla mbindaa fu yépp buñ daje woon bëgg laa jëriñ duñ la mën a jëriñ lu dul li yàlla dogal ci yow buñ daje woon bëgg laa lor duñ la lor lu dul yàlla tudd ci yow yàlla xalima yam doon bind yëkkati na ko la nga xam ne mooy këyit ya wow nañu lii mbokk la jullit war a gëm mu koy delloo ca la nga xam ne nii moom mooy ñaan gu màgg googee su dee nii la nga xam ne nii delloo nañ ko ci sahabatul kiram mbokk ñaan googee moo nekkoon seen gànnaay ga gën a rëy guñ daan gànnaayoo ci kanamu seeni noonu naam suñu boroom comme nañ ko waxee démb nee na wa aiddu lahum mastataatum min quwa wa min ribaatil xayl ay yow yonent bi yaag say saxaaba lu ngeen man ci kàttan uti leen ko uti leen ay flèche ay jaasi uti leen ay yat uti leen ay mbubboo yu ngeen di protéger woo loolu lépp mbokk yonent bi yàlla amoon na ko soo demoon ci siira dañ naan la gilem gam doon xeexe nii la tudd jaasam ja nii la tudd amoon na ca ñaar ay fittam nii la tudd xatta yatam sax nii la tudd sallallahu alayhi wa sallam borom bi mu ne lu ngeen man ci ay fas dajale leen ko ngir tiital ci noonu yàlla bi waaye nag mbokk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko masaan def ba pare nañ dellu keroog xare badr ki nga xam ne nii mooy suñu bo suñu yonent def na campement armée bi yépp bi mu defee campement armée bi yépp léegi nag ñépp tëdd di récupérer moom kese sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw ci guddi ga di naafila di naafila ba ñu julli suba ba pare mu jógaat taxaw yëkkati ay loxoom di ñaan di ñaan di ñaan ba mante bi mu yoroon wadd abubakarin saddiq dafa ko gannaaw jël mante bi tegaat ko ne ko ay yémi yàlla yónni noppalul nag yàlla nangu na sa ñaan mu ne ko ah kay abubakar asamaan bunt yi ubbeeku na jibril li nga neli di ñëw ànd ak junniy malaaka mi ngi noonu sa yuhzamul jam wa yuwalluuna dubur tey fokk ñu dàq noonu yi bañ daw wane gannaaw booba mbokk ñaata la yor ñetti téeméeri nit la yor yéeféri nekk nan junniy nit ñoom bi ñuy jógee Madina xamuñu woon ne dañuy géeri ña nga xamee ni nii waa Makka ñoom préparé woon nañu dañuy géer si waaye gis nga mbokk ñaan gi nga xam ne ñaan na ko jokkoo ko ak boroomam loolu mooy la nga xam ne moo leen xettali ba keroog ñu dàq yéeféer yi loolu it mbokk mu lay won ne nga la wayu jullit lépp loo xam ne yaa ngi ci jëm lépp loo man ci pexe def ko soxna sa ba ngay takk loo man ci pexe defal waaye bul fàttee la nga xam ne mooy pexe bi gën a rëy mooy ñaan yàlla yombal ko barkeel ko examen bi révisel sa kémtaleel kattan waaye bul fàtte pexe bi gën a rëy ca mooy ñaan yàlla yombal ko barkeel ko tukki bi loo man ci visa ak ay bagage dajaleel waaye bul ñaan bul fàtte la nga xam ne mooy la gën a rëy ca mooy ñaan yàlla yombal ko barkeel ko yàlla moomu nga xam ne dafa ñoo sant ñu ñaan ko bëgg ñu koy ñaan mere koo xam ne du ko ñaan suñu borom yàlla kese ci jaami yàlla yi mooy koo xam ne moo day mere ko ko dul ñaan waaye tey boo ñëwoon tey jii léegi ci imam Hassan ne ko dimbali ma ci nangam mu dimbali la ci suba ga nga ñëw mu dimbali la ca gannaaw suba nga ñëw mu dimbali ko boo moytul bu la séenatee ne boo xun ma waa ci amma suñu borom loo ko gën a ñaan mu gën laa bëgg loo gën a sukkandiku ci moom mu gën laa jokk moo tax borom boobu ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna allazina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin seen borom yàlla mu ne gis nga muy mi ngi jëfilikoo baatu rabbu bokk rabbu mooy ki moom mooy ki bind mooy ki taxawe mooy ki yërëmaate mu ne ah seen borom nee na woo leen ma mu wuyu leen woo leen ma ci jafe-jafe yi ma wuyu leen woo leen ma ci yaakaar yi ma wuyu leen woo leen ma ci tiit gi ma wuyu leen woo leen ma ci lu mu mën a doon ma wuyu leen ñi rëy rëylu sama jaamu nag daañ tabbi sawara xaalidina fiiha mbokk bokk na ñi rëy rëylu mooy ñi nga xam ne dañoo fàtte seen boroom ñàkk réere réere ak la nga xam ne mooy kattanam ba di ko boole ak keneen di woo keneen ku dul yàlla suñu borom mu ne ñooñu day danaa leen tabbal aljanna dana subhanallah danaa leen tabbal sawara toroxal leen ci sawara soosee ay yow mbokk julit sa borom yàlla subhanahu wa taala wax naag yonente yàlla bi ne ko wa ida saalaka ibadi anni samay jaam buñ lay laaj ci man fa inni qaribun ujibu dawata daai ida daan xam leen ne man de ku leen jégalaa maa ngi nangu wooteeb képp ku may woo su dee mën la woo boroom xam-xam yi ne suñu boroom bim ne yonent bi alayhi salaam bi la jaam yi di laaj ci man waxul neel jaam yi waaye dafa tontu directement jaam yi pour wañe ne ndekete ñaan gi yonent yàlla bi muhammad sallallahu alayhi wasallam du ci dara bal soo bëggee sag ñaan gën a gaaw a nangu da ngay jëkk ñaanal yonent bi doog a ñaanal sa bopp amma ku jàpp ne yonent yàlla bi am na lenn lu mu ko mën a jëriñ wala mu mën koo lor kookee mbokk bokk na ci ñu gën a réere diine ci kon suñu borom nee na fu ngeen may woowee ku leen jege la mbokk mi ngi noonu heure boo jaaxlee neel ya allah heure boo jaaxleel neel subhanallah mu nekk nag lu yéeme lool yal nañu yàlla musal ci accident waaye benn waaye maa ngi koy fàttaliku soriwul heure bi daaw yàlla nattoo ko benn oxy benn accident am na ñu bëri ñu ci dee mais mu ne lii ngay li lay yéem ci sénégalais yi mu ne la ëpp ci ñoom kee nga naan yaa cheikh yaa sëñ diw yaa sëñ nangam ku nekk yaa ngi woo keneen ku dul yàlla mbokk xoolal koo xam ne nii la ngay mujj wax mooy yaa cheikh nangam yaa sëriñ nangam mu mujj sa gémmiñ nga dee yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne man maata wa huwa yad'u xay gayra allah daxala annaar képp kuy dee fekk yaa ngi woo keneen ku dul yàlla sawara nga jëm loolee tax mbokk ñu góorgóorlu xam ne wallahi suñ diw moom ngay woo bu doon digg na woote bi sax munu ko munu ci dara borom bi subhanahu wa taala nee na laa yasma'u du'aakum walaw sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu xabiir képp koo xam ne danga koy danga koy woo masalan abu bakrin saddiq ibrahima alayhi salaam muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jàq naan yaa muhammad wala yaa abu bakar wa yaa ali ibn abi talib suñu borom nee na diggul woote boobu nga koy woo boo ko diggoon munu ci dara yowmal qiyaama bu dajeeg yow dana weddi bokkaale gi nga ko doon bokkaale kenn mënu laa xabaare nag ku mel ne alxabiir mbokk alxabiir mooy suñu borom alxabiir moo dégg woote bi yonent yàlla yuunusa ca biir jën ba ca biir lënd mi géej ya loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax alxabiir mooy kay wërsëgal balet ya nekk à 3000 mètres de profondeur alxabiir mooy kay wërsëgal janax ya nekk ci biir suufu montagne ya alxabiir mooy kiy wërsëgal microbe yaak virus yi alxabiir mooy ki nga xam ne dara laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama mooy ki xam lépp ki man lépp ki am yërmaandal ci yépp ki gën a texee di ki gën a torox ci jaame yàlla yi mooy ka nga xam ne moo fay bàyyi boromam jalla wa ala naan yaa sëñ saar sëñ sow sëñ jóob wala sëñ mbàkke wala sëñ si wala sëñ ay dara mbokk loolee njumte munta paase loolu ngallaway boy woo wool yàlla booy sukkandiku sukkandikul ci yàlla comme ni nga xamee ni nii noonu la paase ci njëlbeenu waxtaan bi mbokk suñu borom yàlla jalla wa ala ci yërmandeem gis nañu ne am na benn xadis bu ñuy tuddee xadisul qudsi nga xam ne nii bokk nañu ko solo ci ay tirmiseek ak ahmad ak ñeneen ñu dul ñoom imam cheikh albani nee na xadis la bu wér ca moo di ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sunu borom yàlla day nee na yaa ibaadi kullukum jaa'iyun jaa'i illa man at'amtu ay yéen samay jaam yéen ñépp a xiif lu dul koo xam ne dama ko leel waaye sadaqallahu alazim mbokk tey dañu gis Amérique grande puissance du monde ay nit gaare seen oto ba pare gàddu seen pañe ñëw di yalwaan lu ñu leen jox ñu dem dund ci loolu mbokk mu ne yéen ñépp da ngeen xiif lu dul koo xam ne maa ko leel ay yéen samay jaam sàkku leen ci man ma leen leen kon may leen leen ay yéen jaam yi yéen ñépp a rafle lu dul koo xam ne dama ko wodd soo amee sa maam boo xam ne fekk woon na la crise des années trente bi jokkaleeg la deuxième guerre mondiale laaj ko laaj ko dana la wax ne dëkk dëkkoon nañ fii ci Sénégal ay jamono yoo xam ne këru lëmm sër bu ñu woddoo amu fa mi ngi noonu wallahi am na koo xam ne mi ngi dund ba tey may nettali kër guñ jàkkaarloo woon dañuy tëj kër gi guddi ba guddi lay am ko roccee ko daw am lu muy jënd ndax amul benn sër bu ñu woddoo ci kër gi loolee mbokk tey suñu borom yàlla kër goo dem la leen jaaxal mooy nu ñuy defee rëy loolu rek moo leen jaaxal kon yàlla mooy wodde ñaan leen ma ma wodd leen ay yéen samay jaam xam leen ne yéen ñëpp réer lu dul koo xam ne maa ko jubal sàkku leen ci man njub ma jubal leen ca loolu moo tax ñu ko koy ñaan fukki yoon ak juróom-ñaar ci bés bu nekk ay yéen samay jaam yéena ngi bàkkaar guddi di bàkkaar bëccëg ay yéen samay jaam ñaan leen jéggal ma jéggal leen loolee mbokk tamit mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom teg ca ne ay yéen samay jaam xam leen ne yéen nit ñeeg jinne yépp bu ngeen daje woon ci xolu ki gën a tedd ci ci ñoom yokkul ci sama nguur gi lu toll ne catu pusa ay yéen samay jaam bu ngeen daje woon ci xolu ki gën a bon ci yéen ca mooy iblis wàññiwul sama nguur gi lu toll ne catu pusa loolee mbokk ab julit da ko war a gëm bala ma paase rek am na wax ju bon joo xam ne kilifa gu rëy wax na ko ci Sénégal loo xam ne ni yàggul dara am na kenn ci ñuy wax ci télévision bi maa ngi koy dégg mu koy mu koy mu koy baamuwaat wala ñu ngi may nettali na ma ngi koy baamuwaat ndax mi ngi noonu su ko defee mooy lan mooy yàlla lim am Sénégal bu ko xeebee perte mbokk wax jooju waxi kéeféer la ñu bàyyi ci xel bu baax waxuma ne ku ko wax yéeféer la waaye dama ne ku ko wax wax na waxi yéeféer mbokk planétaire bu doon dañ koo génne ci nguurug yàlla gi ndax yàlla dana perte loolu mbokk représenté wul dara dara dara ci nguurug yàlla su ko defee kay moo tax yàlla ne yéen ñépp bu ngeen bokkoon baax dara la ma yokkul bu ngeen bokkoon ban dara la ma yokkul suñu borom yàlla jàlla wala teg ci ne ay yéen samay jaam bu doon te ne nit ak jinne yépp dañoo taxawoon ku nekk la nga xam nga ñaan ko ay yàlla may ma planète terre may mi mille milliards de château yàlla may ma yàlla may ma ku nekk la mu bëgg mu ñaan ko ku nekk ma defal ko lam bëgg suñu borom yàlla mu ne du wàññi ci sama ngóor du wàññi sama am-am lu dul xanaa ki demoon géej samp fa benn pusa yëkkati ko li taq ci pusa bi ci ndox loolu day mooy représenté seen ñaan mbokk kii mooy yàlla jalla wa ala nan ngay amee ku mel nii borom yërmande ci borom kàttan gi ba pare di jàq di woo keneen ku dul yàlla di jaaxle di woo keneen ku dul yàlla di yaakaar di woo keneen ku dul yàlla mbokk loolu du dal lu dul koo xam ne dafa texe di gën jàmm ga ci texe di mbokk julit suñu yeneente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nañu ne day nee na laysa akramu ala allahi min addua amul lenn loo xam ne yàlla gën naa bëgg gis si ab jaamam lu mel ne la nga xam ne mooy ñaan mbokk daanaka bay xool julli commencement ba fin lépp ay ñaan la lu tax loolu mooy aji ñaan mi ngi wàññi ne moom ku lott la kuy aajowoo la ca loolu mi ngi saxal la yàlla wax yaa ayuha nnaas antumul fuqaraau ila allah mi ngi noonu yéen ñépp da ngeen aajowoo ci seen boroom seen boroom nag mooy ki woom lekk yéen ñépp aajaloo ci seen boroom de Donald Trump ak ki gën a suufe ca pauvre yi nekk ci àdduna bi ñépp aajowoo yàlla kon bi nga taxawee reconnaître loolu yëkkat say loxo jëm ci moom wala jatt sa loos jëm ci moom yaa ngi wone ak toroxlu waaye yaa ngi saxali kattanu borom boobu jalla wa ala yaa ngi saxal yërmandeem ci ne lii ma koy ñaan day am na ci kattan te am na yërmande ci defal ma loolee yaa ngi nekk itamit di feeñal la nga xamee ni nii moom mooy doyloo gi nga ko doyloo keroog bi say moroom riiree jëm ci keneen mbokk yàlla moomu jalla wa ala mooy ki nga xamee ne nii heure boo dajale lii yi yépp dana la gërëm gërëm goo xamee ne nii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax addu'a huwa al ibada jaami yàlla daal ak jaamu yàlla daal bu ñu ko doon tënk mooy ñaan waaye ji nga xam ne yaay ñaan dajale nga mboolem la nga xam ne nii mooy ah jaamu ga ñuy jaamu sa boroom jalla wa ala loolu moo tax ba mbokk julit yonent yàlla yi nga xam ne seen mission mooy teeti nit ñi jëme ci yàlla amul kenn ci ñoom lu dul yàlla nattoo na ko problème boo xam ne toroxloo na ci kanamu yàlla ñaan yàlla teggi ko bokk na ci yonent yàlla nuux keroog ba muy ñaan yàlla na ko ay yàlla inni maghlubun fantasir ay yàlla jalla wa ala man de not nañ ma ay yàlla dimbali ma ci liñ may weddee yàlla subhanahu wa taala wuyu ko xoolal ibrahima alayhi salaam mi nga xam ni diina ju tedd ji ci ak ñaanam la jóge yonent bi alei salaam ne ana da'watu ibrahim moo tabax kaaba ga ñaan yàlla mu boole ko moom njabootum ñu jébbalul ko ñaan yàlla mu wërsëgal ko wërsëgu tedd waaye ñaan yàlla mu génne fi yonent boo xam ne dana leen teete ci lu leen di texel àdduna ak alaxira yonent boobu mooy ibrahima alayhi salaam yonent bi alei salaam ne man may ñaan nga ibrahima ñaanoon xoolal li ma leen wax sànq muy yonent yàlla yunus yàlla nattoo ko ci prison boo xam ne moo fa mës a dugg génn fa keneen du fa dugg génn ba ila yawmi diin ab baleen ñëw wann ko dugg ak moom ca profondeur yi lëndëm ya suñu borom mu ne mu woote ci biir lëndëm ya laa ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min azalimin ay yàlla kenn yooyuwul ñu ko jaamu ko dul yow sell ñeel na la bokk naa ci ñi tooñ yonent bi alayhi salaam nee na amul kenn kuy nekk ci njàqare ak tiis ñaan-ñaan googe lu dul yàlla xettali ko ngalawaay fat cam bàyyi ko xel bu baax ngalawaay muudu njaay bàyyi ko xel bu baax heure boo nekkee ci kanamu jafe-jafe del bari wax laa ilaha illa ant subhanak inni kuntu min azalimin kenn yooyowul ñu koy jàmm ku dul yow sell ñeel na la bokkoon naa ci ñi tooñ mbokk xoolal yonent yàlla zakariya yàlla nattoo ko amul doom ba màgget mook soxna màgget ba soxna si dugg ménopause waaye mu continue ñaan yàlla suñu borom mu ne wa zakariya is daa rabbahu is naada rabbahu rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul warisin ay yàlla bu ma bàyyi ma nekk ku wéet yaa gën ci ñuy donn borom bi subhanahu wa taala nee na fastajabnaa lahu nii laa ko wuyoo wa wahabnaa lahu yaxya may ko doom ju ñuy wax yaxya boo xam ne yonent la mujj nekk wa aslahnaa lahu zawja jabaram ja nga xam ne dafa istériloon ma may ko mu commencé am doom lii mbokk mbir la yoo xam ne ni suñu borom yàlla jalla wa ala soo delloo suratul anbiya da nga fa fekk yu yéeme yonent yàlla ayyub lii nga xam ne moo dal nit ñi ci corona naka feebaram ba jàppe wallahi ñii corona feebar jàppewu leen woon noonu waaye suñu borom gis nga li mu wax mu ne ayyuba isnaada rabbahu anni massani dur wa anta arhamur rahimin daa ji ne ay yàlla lor dal na ma yaa ëpp ci ñi yërmaate suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne nii laa ko wuyoo teggi lor yi nekkoon ci moom ca nii it laa koy defee ak fàttali ñeel ñi nga xam ne dañuy gëm su ko defee mbokk jullit yi ci keppaar gi yegg si nañ suñu 30 minutes ñi ngi jeexale ci yonent yàlla ayub mi yàlla tegoon natt boo xamee ne nii xamoon na ne yàlla rek ko mën a teggi ay suñu borom it say jaam lañu na ayuba nekkoon say jaam mas mi wàcc ci kaw suuf nangu nañ ne dara warulu ko lu dul bakkaar yu bon yi nga xamee ne nii say jaam yi fetteerlu fàtte la ñoom ñoo ko saxal ci kaw suuf lenn dong ko mën a yëkkate suñu borom mooy sa njëggal ak sa yërmande ay yàlla ñi ngi lay ñaan bu ñu toppee mukk ci li dof yi ci ñun di def ñi ngi lay ñaan nga xool ay benn benn yi nga xam ne ñoo tasaaroo ci penkook sow nga xam ne duñ la bokkaale ak dara yaakaaruñu ku dul yow sukkandiku ci ku dul yow ngal la waay yàlla nga teggal ñu mbas ñi ak lépp lu mu àndal ci ay conséquences yoo xam ne nii dana lor dana mën a lor la nga xam ne ni moom muy jurit yi boolam ña nga xam ne ay jurit lañ ñu ci faatu yal na yàlla defal leen firdawsu seen wàccuwaay ñu ca tëdd ca lalu hôpital ya yal na yàlla yëkkati leen ci jàmm delloo leen ci seen njaboot ña nga xam ne yàlla musal na leen ci ba léegi yal na yàlla continuer leen ci musal yal na yàlla may ñu aafiye ci suñu diine may ñu aafiye ci suñu dund may ñu la nga xam ne mooy njéggalam ak yërmandeem fi dunia wal axira kon mbokk incha allah ñu dellu ba subaak jàmm ñu dajewaat fii di ñaan yàlla mu mu sàmm ñu sàmmal ñu suñu njaboot defal ñu teranga àdduna defal ñu teranga alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu